coucou mes amours j'espère que vous allez bien vraiment tey ñëwuma fi ak xol bu neex waaw parce que dama sonn pour diir vrai ndax boobu ba tey nit yi ñu ngi nekk di def lu nekk ñu ngi koy maligancé ma nekk sama coin kenn du ma gis ma génne kenn du ma gis ma def vidéo parce que dama doon jàpp ni non amul solo mais là c'est trop am na ci nag nit yoo xamante ni je pense que amuñu xol amuñu yërmande te jàppewu ma leen sax nag ay nit parce que man bi ma marié wee yàggul tey mënuma xëy suba di dégg ay cas yoo xamante ne mu mel ni comme si que man du ma nit a fait lan ma jàppee chaque jour ñu ngi def may bàyyi mu sedd chaque jour ñu ngi def may bàyyi mu sedd dafa am benn gaayen boo xamante ni parce que dafa sax def comme quoi que jigéen la ndax dafa am ku mu contacter naan ko man la kuma mu ndaw di ko envoyé ay message mais nanguwul def vocal gaayen bi di def ay enquête am ba xam ni du man mujj gi mu dem ba à que di jàpp grand bi di di wax daal du n'importe quoi léegi nag li ma leen waxoon rek sama interview booy passé moom laay waxaat dootuma baale donc je disais dootuma baale lépp lu ma waay def dinaa la topp jusqu'au bout gel yi ma fi amaloon problème récemment nit yi nekk nañ ci ñaan ci wax ba après ma bàyyi mu sedd mais bii gisatuma kenn kuy taxaw si sama kanam di ma ñaan ba may bàyyi parce que yéen da ngeen yaa dama yaakaar ni jàppewu leen nit yi ñoom ay nit yéen seen bopp rek ngeen considéré mais yeneen ñi duñu ay nit lan mooy ay affaire de siiw nit ki dafa war gëm boppam li nit di def ba am ba am li mu bëgg yéen boo leen ko defee mën ngeen ko am dignement maa non non ci ginnaaw seen téléphone yi ngeen di nekk di def du n'importe quoi dootuma baale dootuma baale lenn rek nag laay wax dinaa dem porter sama plainte cybercriminalité gis nga ñooñu bu ñu leen jàppee même bu ñu nekkee sama ay mbokk yu ma proche dinaa bàyyi yoon def li nga xamante ne moom mooy merci beaucoup léegi kooku contact am waaw moo nekk nii ngeen di gis voilà ñu nga foto ku moom daw la ci def numéro téléphone baa ngi nekk nii ku mu contacter xamal ni usurpation d'identité la def dafa jël identité jàmbur jël photo kooku jël tur kooku di envoyé nit ñi message xam nga bu tombeek xam nga bu fekkee ni par exemple tey dafa nekk actrice boo xam ne siiw na par exemple tey xaw naa taaru wala yu demee noonu comme réseaux sociaux li ñuy fonctionner rek influenceuse yeeg yooyu voilà